day mel ni kàddoom matale na yoon nee day mel ni kàddoom matale na yoonu murid yépp muy Cheikh Ibrahima Fall Serigne ci waaj nag mu bàyyi ko ci jëriñu Serigne ci waaj nag Cheikh Mouhamadou Mountakha nee mi ngi ñaan seen borom mu yàggal suñu dund ci wéral leen jaar ci jëriñ ji nga xam ne ñëpp ko nangul li mu ko def. mu jaar nag ci jëwriñam ji nga xam ni ñëpp ko nangul lii mu ko def. def ko ko. nee ndax daa fekkoon ay kilifaam def ko ko. mu yeesal def def def ba rek. muy Cheikh Mouhamadou Bassir. muy Cheikh Mouhamadou Bassir. moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke. moom Cheikh Abdou rek ñenn ñi. moo moo yónnee woon kàddu gi. moo yónnee woon kàddu gi. wala moo indi woon kàddu gi. wala ko ci jëwriñu Serigne Touba ji. andi ko nag ci jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall mu sotti ko nag ci jëwriñ bi nga xam mu ji nga xam ni. wax nañ leen ba tàyyi leen. moom wax na leen ba tàyyi ni leen. jiital ko moom mii di sëriñ Fallou. moom mii di Serigne Fallou. ak dégg rek sëriñ Fallou Gallassi la. ak la. Cheikh Alioune Fall mi nga xam ne moo fi toog moo fi toog mooy jëwriñ nga xam ne ginnaaw Serigne bi moo mag ki ñi fi toog ñu jotaay bi. maa soo waxee ne mel ñi fi nekkal suñu mënul Aminta. ñi fi nekkal ci jotaay bii. ci jotaay bii. man xam ngeen li ma doon ci moom. ne moom kat xam ngeen li mu doon ci sëñ Assane. sëriñ Fall xam ngeen li mu doon xam ngeen li mu doon ci ñun moo tax ma tuddee aw turam noonu nag nee moo tax mu tudd aw turam noonu yi ma ko tuddee di wane li yoon yu baaxoo di wane nag li yoon yu baaxoo ndax ñii fi daje mooy seen kilifa ndax ñii fi daje mooy seen kilifa may tam may kilifaam moom itam kilifa nekk it kilifaam nekk fi nii moo tax jaar moo tax mu jaarale wax ji ci moom rek dama leen xamal ne dañuy xamal ni jëwriñu Seex Ibra Fall ji jëwriñu Seex Ibra Fall ji di Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jëmm. jiitalul Serigne Fallilu ci kanamu kilifaam yi. jiitalul Serigne Fallilu te kanamu kilifaam yi. da koo def. da koo def. muy seen ndaw. muy seen ndaw. di leen waxal. di leen waxal. di jëfal. di leen jëfal. loolu ku jaax ku fer ji ku nekk. loolu ku fer ji ku ne. war a xëy a xam ni noonu la ko Serigne Cheikh jëmm defee. waaye foofu de seen kanam waaye foofu ko nag teg ci seen kanam de. ñu baax ñëpp a nangu lii mu ko def. baax ñëpp a nangu lii mu ko def. ku sam xel de xalaat rek. ku sam xel xamal am na. xam nga li tax sëriñ bi def lii mu def. day mag ñi mu bokkal. daa mag ci ñi mu bokkal. te ñëpp di ay ndaw. te ñëpp di ay ndaw. ku ne war a doxee. ku nekk war a doxi la nga war a dox nag la nga war a dox nag mu di ko teg ci loxoom mu di ko teg ci loxoom mu di ko teg seeni loxo mu di ko teg nag ci seeni loxo loolu leer nañ la leer nañ kër gu mu fi dem rek nee kër gu fi dem rek wax nañ leen wax nañ leen ba tàyyi mooy taxaw kër ga waaye nag waaye nag moo fay mënees na ko ni taalibe bu na ko sax ni tudde ko ni ko taalibe bu mag ba rek moo baaxoo ndax yoon moo baaxoo ku mag ci sa kër baay sa kër ku ne ñëpp topp ci sa ginnaaw ci sa ginnaaw loolu nag loolu nag mooy jëwriñ ci kër gu ne mooy jëwriñ ci kër gu ne loolu moo dal jëwriñ ji toog loolu moo dal jëwriñ ji jiitu moom bëgg la jiitu ñu weddiwul kilifteef fii mu ne fii mu ne ay kilifaam ay kilifaam ñoo ko fi teg rek su leen neexoon bu dee xëy su leen neexoon bu dee xëy bu dee am xëy la bu dee am xëy la jant du ko jant du ko fi sooyee bu dee bu dee ngoona asamaan du ko fi sete des koo jiital seen kanam rek. des koo jiital ci seen kanam rek. mu di leen defal di leen waxal. mu di leen defal di leen waxal. kon sëñ Fallou Galass si la loolu. kon sëñ Fallou Galass si la noonu nga ko waxee. loolu moo waral. loolu moo waral. kàddu gi ba kàddu ga demee ci jëwriñu Seex Ibra Faal ji. Euh, ba mu joxe kàddu yu gàtt yi mu joxe. ba mu joxe fa kàddu yu gàtt yi mu joxe. te mat sëkk te mat sëkk. mu yabal la ci moom. mu yabal la fii ci moom. bëgg nga wax kàddu mooy. nga wax kàddu goo xam ni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 te bokk na ci kon yi def leen ko ji te bokk na ci kon def leen ko ji def leen ko ji def leen ko ji kenn warul nekk ban la wax kenn wartu nekk ban di la ko wax ni mu def rek ni mu def rek ñëpp ni war a def ñëpp war a def ndax bokk na ci su su su bi daa ndax bokk na ci bu ci fekk bi daa amoon ki ko deful ki ko deful lu mu wax moromu muritam lu wax moromu muritam jëru koo jàppe jëru koo jàppe ndax du dëgg ca moom ndax du dëgg ca moom de as goro as goro lam wax rek yem ca. lam wax rek yem ca. mënees na koo téyel. mënees na koo téyel. waaye bala soo nangul dëgg nag. waaye bala soo nangul dëgg. da koy jëfe ñu gis. da koy jëfe ñu gis ko. sëñ moom jëluloon muy wax kenn jëlul muy wax kenn dara. sëñ bi jëlul woon muy wax kenn dara. ndax lan lay waxee moo xamul loo xamul lay ndax la ngay wax loo xamul lay doon. lan lay wax. lan lay wax. day doon loo xamul. day doon loo xamul. te moom waxul laa def. te moom waxul laa def. ginnaaw daa bëgg ñu def nag. ginnaaw daa bëgg ñu def nag. su doon wax ak dina métti. su doon wax ak dina métti. ndax dina am ñoo xam ne duñ xam la muy waxee. ndax dina am ñoo xam ne duñ xam la mu far def ñu gis. mu far def nag ñu gis. mu muy def leen nii. mu ni def leen nii. kooku daal ku mu jàngal. kooku daal ku mu jàngal. war ngaa mokkal lan lay jàng. war ngaa mokkal lan lay jàng. kon ci turu jëriñu Cheikh Fall ji. kon ci turu jëriñu Cheikh Ibrahima Fall ji. di jëm. di Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jëm. jaar jaar ci kilifaam yëpp. jaar ci kilifaam yëpp. nga xam moom defal boppam ndaw lu mag. nga xam ni moom defal boppam lu mag. as ndaw rek la def boppam. as ndaw rek la def boppam. ci seen biir. ci seen biir. di wax di def. di wax di def. ci kaw seen digal nag. kaw seen digal nag. moo jotali kaddu yii. moo jotali kaddu yii. bàyyi ko Serigne Touba. bàyyi ko ca Serigne Touba. jaar ci jëwriñam. jaar ci jëwriñam ja. Cheikh ñëw ci jëwriñu Cheikh Ibra Fall bi ñu soog ko teg ci loxoom ñu fab ko ci ay loxoom nga xam ne muy joxe baatu ndigal boobu yi nga xam ni jëwriñam jooju di kàddoom di lépp jëwriñam jooju di kàddoom di léppam di Cheikh Bassirou moom Cheikh Abdou Khadir ñëpp dégg ko mu leer nañ ñi mu def nag ñu gis mu def nag ñu gis dolli ñu ca nag dolli ñu ca nag mu bëgg kuy ñëw ci bi mu bëgg kuy ñëw ci bisu Sëriñ Tuubaa bi na ko ñëpp waajal na ko ñëpp waajal kenn ku ne. kenn ku nekk. melokaan woowu nga xam ni. melokaan woowu nga xam ni. lislaam nangu na ko. lislaam nangu na ko de. ñooñ lislaam nangu nan ko. ñooñ mooy lislaam nangu na. na. bu jàngoro dajee am réew. bu jàngoro dajee am réew. na ñëpp maase. na ñëpp maase. ci di ko fagaru. ba noppi nag. ba noppi nag. boole yaar yii. boole yaar yii. jëf. jëf. ak jaamu. ndax bu liggéeyatul. ndax bu liggéeyatul. jaamu. jaamu. te loola dal. te loola dal. te te te muy tuddoo lislaam. te muy tuddoo lislaam. kooku mën naa génn àdduna ci bis ba. kooku mën naa génn àdduna ci bis ba. lislaam da ngay boole jaamu ak jëf kat. lislaam da ngay boole jëf. lu jàngoro ji rëy rëy. lu jàngoro ji rëy rëy. te di ko moytu nag. te di ko moytu nag. loolu loolu lislaam nangu na ko. loolu ko. kon nag bi mu doonee ndigal sëñ Tuubaa kon nag bi mu doonee ndigalul borom Tuubaa te te dana jaar ci kër yëpp nag te dana jaar ci kër yëpp nag waaye dafa agsi nag ci kër Cheikh Rafal mu bëgg nag mu bëgg nag lu sëñ Tuubaa di lu ne lu sëriñ Tuubaa di digle lu ne Cheikh Ibrahima jiitu ca loolaa daan am ndaka jekk nag ndax jëfe ndigal moom des ci roy Cheikh des ci royu ci kenn waaye Cheikh Ibrahima royu ci kenn kon bi sëriñ bi defee lii rek képp doyoon na képp doyoon na ñëw nag yebal ko ci jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji ni ko wax ko njabootu Cheikh Ibrahima Fall ba noppi ñu tegal la ca dara ndax leer na naññi de kon nag sëñ bi nee na kuy ñëw ci màggal ku ne noonu yi sëriñ Tuubaa digle noonu yi sëriñ Tuubaa digle te def ko na ni mel na nga ni mel na nga wut am masque takk ko ba noppi do gàdduwaat sax nag. ba noppi nag gàdduwaat sax nag. ndax masque moom. ndax masque moom. benn mënu ci sax benn mënu ci kaa sax. da yor benn. da nga yor benn. bu tilimee. bu tilimee. nga fóot ba mu set. nga fóot ba mu set. sol sol yor ba ca des. yor ba ca des. su boobu tilimee. su boobu tilimee. fekk fóotoon nga. fekk fóotoon nga. loolu leer nañ. loolu leer na nañ. te boole ci nag. te boole ci nag. raxasu mi nga xam ne. raxasu mi nga xam ni. lislaam nangu na sell. lislaam na ak sell. laab moom. ndax laab moom. mooy genn wàllu diine. mooy genn wàllu diine. diine diine diine ji ñu nekk. diine ji ñu nekk di lislaam. ndax diine moom. ndax diine moom. karace na ngi fi. karace na ngi fi. yi yéefar yaa ngi fi. yi yéefar yaa ngi fi. li li bëgg wax mooy diine moom yaatu. li bëgg wax mooy diine moom yaatu na. waaye ju sell la waaye ju sell ji nag. mooy lislaam mooy lislaam. laaba ji. laab moo ci jiitu nag moom. kon roxo suba see bi ci moom. soo ko jëfandiku. soo ko jëfandiku. buñ ko waxul itam war ngaa xam ne loolu cërub lislaam la boo déggul yow boo déggul yow wala boo xamagul wala boo xamagul waaye yow muy tuddoo lislaam waaye yow muy tuddoo lislaam yaa war a jàng loolu a jàng loolu te di ko jàng te di yi kon kaddu su guddee jërul guddal jërul su gàttee su gàttee ndax ki digle ndax ki digle la mu digle la mu digle def na ko. looloo gën a gaaw nag jàng ko looloo gën a gaaw nag jàng ko. li nga bëgg nga def ko. li nga bëgg nga def ko. nii lañ koy defee. nii lañ koy defee. foofu des mën a yem. kon sëriñ baa ngi jotali li yooyu. kon takk masque. raxasu. raxasu. ci saabu ba set bi. ci saabu ba bi. yor ndox mu ñuy wax sel baa. yor ñuy wax sel baa. sel moom daal li xam ngeen ko. waaw li ñu bëgg a wax xam ngeen ko mooy lii rek. waaw li jund moom. mu ci mooy kii. li sëñ bi jund. li sëñ bi jund. lépp lépp. ko mu daan ko mu daan wax. mokkal nañ ko mu daan wax. ci ndigalu tey. ci ndigalu tey lii. ndax da koo digle woon démb. ndax da koo digle ñu jàng ko mokkal ñu ñu digal ko ñu digalaat ko tey jii. kon jàngal na ko dana yomb. kon kon digal làngoo. kon fi bi nee na ndigal làngoo. ci turu jëw ñu Seex mu jaar ci jëwriñam ji nga xam ni moom dafa ne ci roni kilifaam rek moom dafa ne ci roni kilifaam rek buñ waxee mu def buñ waxee mu def mu jëf buñ jëfloo jëf donc la nekk ci la la nekk ci seen kanam kenn jiitaloo ko seen kanam waaye kenn jiitaloo ko seen kanam de des koy defloo rek des koy defloo rek di ko waxloo waaye ñoom ñëpp ne ci kanam waaye ñoom ñëpp ñu na ko nangul na koy def te nangul nañ koy nag kon Serigne Fallou Gala Sylla kon Serigne Fallou Gala Sylla Serigne Fallou mi nii toog ñii toog ñii toog di rakkam yi tedd yii ñoo fi nekkal seen ci bokkal yoon yëpp. ñoo fi nekkal ñun bokkal yoon ñëpp. waaw ku Seex Faal di sa maam rek. ñiitoo ku Seex Faal di sa maam rek. ñii toog ñii toog. xàmmee nan jotaay bii nee na jotaay bii ñoo ñoo la fi wóotu ndax ku ci la nga la nga nekk boo ca daana nekk ba la ataane laaj nga ndigal laaj nga sa am ko sa kilifa ba am ko la nga nekk la nga nekk la ndigal la muy ndigalu jotaay bi muy ndigalu jotaay bii ni ndigalu jotaay bii amee yooyu kaddu daal yooyu kaddu daal bokk na ci si bëggoon bokk na ci yi sëriñ ñu bëggoon ñu boole ko ci wax ñu boole ko ci wax ji bu doyee nag ñu yem ci bu doyee nag sëriñ bi ñu yem ci bu doyul itam bu doyul itam ñu wax lu ñu ci war a dolli ñu wax lu si ci war a ñu baax na lii loolu am fay ko jëriñ yu ah, nee na kuy ñëw na nga ko ñun ñi fi nekk di teeru gan it nan ñu ci fekk rek waaw ndigal laa boog koo jëm bu ñu bale murit ndigal jàmm koy nekk tàll sa loxo réew mi ak bitim réew yàlla na bett ñëpp ay xëwal